aleykum mbokk yi nga xam ne yéen a déglu leen ci li nga xam ne nag moom mooy ajuma mubarak bi fas yéene nag tëj semaine bi ak ajuma bi kon nag ñuy def moom mooy euh, benn jëmm ñaara caméra euh, euh, nañu ñu jàkkaarloo soxna Mati Wuri Studio et le plateau pour li nga xam ne mooy promotion émission Kouthia Show fii ci télé Futurs Médias tey ci àjjuma ji ñuy nuyu ku nekk nag di leen gërëm di leen sant Cuba maa ngi koy Abou Mouhamed di la nuyu bu baax di la ziar waaye noonu laay ko fee nuyu àdduna wërngal këpp comme ni nga koy waxee saa su ne ginnaaw wax mu yëg sax na yàlla la neex laata ñuy door dañuy santaat julliwaat sëlmalaat ci sangu-sang yi moom Seydina Mouhamed ñu amati mbégteeg bànneex jàkkaarloo téléspectateur Futurs Médias di leen présenté suñu gaam yi yaan yi nga xam ne moo nekk suñu table bi ñu daal di door ci li nga xamante ne bi mooy jawda jawda nag moom jus la boo xam ne tarkaala nee naa la mag xale ñëpp ko mën a naan te lépp loo leen bëgg ci fruit rek boo duggee ci li nga xamante ne mooy jawda da nga ko fay soxla moom mi ngi ci biir li nga xamante ne bii mooy Jawda ba tey li ci gën a neex mooy ni mu amee yu mag noonu la amee yu ndaw goûter pour xale yi daw leen gaaw jënd ji ko bu seddee day neex tamit bu tàngee day neex ba tey Jawda yemul foofu defaruñ ci li nga xamante ne bii ay lee ay lee bu baax la nee naa leen meew pur la boo xam ne boo koy naan day mel yaa ngi ci gétti ga direct di naan boo leen gisee différence de couleur yi nag leen rek moo ko waral li nga xamante ne mooy bële bi dafa naturel dafa naturel xale mag ndaw ñëpp ko mën a naan daw leen gaaw jënd ji ko mi ngi ci marché yi ñi nga xamante ne dañuy faral di lekk lu niin di am problème mu dangeen koy utiliser boo looleen loo leen di lekk lu mu niin niin boo leen naanee li nga xamante ne mooy meew bu moof bi dangeen di digérer vite fait ba tey ma ñëw ci li nga xamante ne mooy rouge bi pour ñi nga xamante ne dañuy régime jël leen li ngeen xamante ne mooy meew rouge bi amul dara ci li nga xamante ne mooy sucre kon damay jaajëfal bu baax a baax jawda nee naa la meew la boo xam ne bu tàngee day neex bu seddee day neex ma dugg ci li nga xamante ne mooy gaamu baby met baby met nag pour xale la waaye mag gi dañ ciy gis seen bopp ndax xam nga ne baby dañoo nekk ci jamono boo xam ne bu yaram di euh, day upp yaram di woow mais da di jël li nga xamante ne mooy vaseline baby met macha allah baax na trop te xale mun na ko jël mag tamit mun na ko jël gis nga li nga xamante ne bii nii mooy lait bi day hydrater sa peau moom tamit nourrir ko bàyyi la ak teint bu waar te noonu la amee savon am li nga xamante ne bi mooy gel de bain te xale da koy sangoo mag tamit mun na ko sangoo ñu defar ñu parfum boo xam ne amul dara ci alcool macha allah baax na torop daw leen gaaw poudre bi mi ngi noonu mag ak ndaw ñëpp ko mën a utiliser sama tampon bi nag nee naa la moo gën a gaaw ci xale bi nga xamante ne tarkalla ay nelaw day faral di yàqu ndax boo ko couché xale 24 heures sur 24 dina nelaw bu baax te du am dara lu ko déranger daw leen gaaw ngeen jënd ji ko ba tey mi ngi ci marché yi yemul foofu ak ñun defaruñu fi nag saak boo xam ne nee naa la dafa pratique ndaxte boo taxawee ca marché ba doo fa nekk naan ko jaay ma benn wala jaay ma ñaar da ko naan jox ma li nga xamante ne mooy gàmmu euh, béy bi mét boo foofu te yaraax bébé fàtte dafa daal di xam li nga xamante ne mooy gàmmu béy bi mét kon béy bi mét mi ngi noonu ma daal nga xamante ne transfert bi nee naa la moo gën a gaaw gën a wóor fi jamono toll dafa yëngal daal di gësam muy sa xaalis yaay borom gis nga li nga xamante ne bii nag mooy wéef waaw da ngay envoyé cinquante cinq mille francs da fay li nga xamante ne mooy. cinq mille francs da fay fukki dërëm. waaw kay nga daal di joxe dix mille. da ngay fay cent francs. cent euh, cent mille. mille francs. Euh, da ngay joxe li nga xamante ne mooy dix mille francs nga transféré. kon nag daal Wave mooy sa xaay sa poche. jeex na tàkk te li ci gën a neex mooy bu fekkente ne da ngay dépôt doo fay dara retrait doo fay dara lépp loo xamante ne bii nii dafa dafa kii lépp loo xamante ne fa bokk ci xeetu facture boo ko bëggee fay ak Wave doo fay du la dikkee dara doo fay dara da nga koy fay. daal c'est te doo am waaw dafa lépp dafa. yow daal mu ngi fépp. jeex na te li ci gën a neex ba tey fekkente mën na dem ci téléphone bu fekkente ne sa téléphone mënul jël li nga xamante ne mooy application Wave da ngay jël li nga xamante ne mooy carte bi sa carte rek nga yóbbu ñu enregistré la ko somme boo bëgg mën nañ la ko ci defal booy retiré tamit somme bu la neex mën nañ la ko ci retiré te nee la ñëpp mën nañ ko jël carte baa yi nga def sa jàpp ca mbagg boo leen amee émission bi di bëggee di reetaan grâce à sama sponsor yaa ngi ñoon tey ma leen di jaajëfal bu baax a baax Abou Mouhamed ma lay ñaanal àjjuma jàmm ak salaam fi kenn jàmm ak salaam nga daal di wéyale boo gisee booba rooj bu nag doo ko bëggee waaw nga daal di sàjj ba muy moom am nañu mbégte ak contentement bu mag ànd ak yéen seen émission Kouthia Show bu ñu sante yàlla suñu borom nag julli ci Seydina Mouhamed paix et salut ak njabootu yonent yàlla Yesu Christ dañuy dem nag gërëm njabootu alaaji Omar Foutiou gërëm nag sëñ Mountakha Bassirou Mbacké xalif général kulu murit yàlla na fi yàgg te wér yàlla may ko fan bu gudd mu yàgg fi lool te wér yàgg ñoo jiite sëriñ Babacar Mansour Sy xalif fi yàlla bàyyi wér waaye tamit suñu xel day dem si xalif général day Baye moom tamit ñu koy ñaanal fan bu gudd ak wér gërëm di ziar sama baay Cheikh Ahmed Tidiane Khalifa Niass sa lewoon Niassène yal na ko yàlla may fan bu gudd baay aadi Thiam yal na yàlla gudd fanam waaye imam Cheikh Cissé rek ci Medina Baye yal na ko yàlla defal fan bu gudd ak wér gu yaram njabootu Serigne Cheikh Bekay Kunta ca Ndiassane di ziar tamit Serigne Abdourahmane Seck Abdourahmane Abdourahim Seck xalif bu Thiénaba waaye Thierno Bachir Tall xalif Omar yéene ak doom ji Cheikh Omar ziar nañ leen di am mbégte Mohamed Lamine Ngom ca Paal njabootu Ahmed Tidiane Ba xalif général bu Medina Gounass yàlla ko yàlla defal jàmm njabootu Serigne Youssoufa Mbaye xalif Mame Cheikh Mbaye njabootu Serigne euh, Mansour Cissé euh, bu Pire njabootu Serigne Mame Abdou Dramé bu xalif bu Nand njabootu Alaaji Modou Mame Cissé xalif bu Jaamal ziar nañ ko Thierno Madani Tall xalif Thierno Moundaga Tall njabootu Cheikh Moussa Camara Cheikh Moussa Cissé Ndiambe borom Daaru Thierno Abdourahmane Bari waaliyu Kaamil nekk ca Bogal ju baax ja yal na ko yalla may fan bu gudd gur guram sëñ Abo Mbàkke yal na yàlla defal jàmm may la fan bu gudd yow àll su di ñaanal tamit sëñ Fallou Mbàkke docteur yàlla may ko jàmm may ko fan bu gudd docteur ci zahir ak ci baatin sama xarit ba sama soppe yal defal jàmm ak jëwriñ Moustapha Sène alaaji Cerno Samba Sam morabi nekk ca Fuuta di Cerno wala yaabe yal na ko defal jàmm góor gi Samba représentant xalif général day Tidiane nekk ca Ziguinchor imam François Bodian xalif général de la Joola ñu ngi koy ziar Serigne Cheikh Salim Mbacké xalifa Serigne Salim Mbacké yal na fanam ca Fuuta samay bàyyi bopp ngi koy ziar alaaji Seydou Sow sopp sëñ Fallou dëkk ca Passy sëriñ Abdou Karim Mbacke xalif bu euh, ca Ndindi ñu ngi koy nuyu tamit di ko ziar di ko ñaanal fan bu gudd ak yaram moom nag moom mooy sëriñu Fari ak Mama Mbeng Modou Fleur ci kër ga yàlla na ko yàlla may fan bu gudd ak yaram cardinal Théodore Adrien Sarr monseigneur Benjamin Ndiaye abbé Jean mboolem chrétien bu yeewoo ci réew mi te dëkk ci Popenguine ak ci ak ci paroisse ak ci jàngu may ko fan bu gudd gudd yaram suñu yaay ju baax jooju Serigne Mansour Sarr chef religieux dëkk ci buddi ak suñu yaay Adja si yal na yàlla guddal seen fan suñu xel day sori lool suñu baay ju baax ja di Cheikh Ahmed Tidiane si Al Maktoum yal na xippee ci àjjana gën a kawe di ziar Serigne Babacar Abdoul Aziz si Tivaouane Alaaji Tafsir Sakho Ilimaan waxtu bi daana toog di seetaan yor kurusam yal na yàlla def mu xippee ci àjjana gën a kawe Alaaji Aliou allah le premier janvier day inauguré benn jumaa ju mag foofu ca Mbour jumaa mu daal koy dippee les 99 noms de Dieu yi nga xam ne nag day sargal suñu borom Medoune Seye moom tamit borom taw feex yal ko yàlla defal jàmm di ziar imam Kaaso Gassama góor gi Ablaye Niang jànkatu xasaayit bu mag la woon sa jamono Serigne Touba ma mu nga ca barsax yal na ko yàlla def mu xippee ci àjjana gën a kawe waaye mbokk yi ñu nuyu tamit ca daaru rilwan kilifa diina yi fa nekk yëpp njabootu alaaji basiru Touré dem ca Medina waaye di nuyu tamit Serigne Mansour Ndiaye Baye Fallou Serigne Fallou Touré yal na ko yàlla defal jàmm mbokk yi ñuy nuyu tamit waa Medina euh, Medina Tandian Diourbel njabootu waa Medina Tandian Diourbel yëpp yal na yàlla may fan bu gudd alaaji Cerno Mbaye alaaji Cerno Alassane Mbaye ak Cerno euh, <laughs> Aliou Thiam ñoo nga samay soppe nañ ñu nga ca Fuuta di ay waaliyu kaamin di nuyu tamit njabootu euh, Serigne Massamba Dra Dramé ak xalif bu yees bi nga xam ne moo fa nekk di xalif bu euh, ca ndimb euh, ca Dramé ndimb nuyu nañ ko waaye sëriñ Medoune Boye doomu Alaaji Basiru Boye kooku nga xam ne nag suñu baay ju baax ja di maam Khalifa na ko yàlla defal jàmm wax dëgg yàlla kilifa diini nekk ci réew mi yëpp yal na yàlla sàmm Alaaji Banfa Karamaxo Saanaxo di xalif général bu Touba Saanaxo yal na ko yàlla may fan bu gudd ak wér-gu-yaram maam Abdoulaye Kebe bu sëriñ euh, Babacar Kebe di waaliyu kaamin bu fi nekkoon di ñaan président chef d'état yu bëri doom ja nag doon na bàyyi ja ku yiw ku baax di maam Abdoulaye Kébé yàlla na ko yàlla defal jàmm conférencier bu mag la nekk ca Cambérène ñu ngi koy ñaana fan bu gudd ak wér-gu-yaram euh, Kébé Ndiouga Ali yàlla yàlla defal jàmm nuyu nañ tamit sama baay ju baax di nekk ca euh, sama mbokk xaal pulaar yi Alaaji Momadou sata xalif bu get ardo yàlla na ko yàlla defal jàmm Cheikh Ahmadou Bamba Ndiaye di xalif bu lubudu ñu ngi koy ziar di nuyu tamit Serigne Moustapha euh, Momadou Moustapha Sow waaliw Kaamin bu xalif bu maam Abdoulaye Sow ca Dagana ñu ngi koy ziar Chérif Abdoul Moutalib Tidiane sët la si Cheikh Ahmed Tidiane ci Pikine yàlla ko yàlla may fan bu gudd sëriñ xaali Cissé Touré ca Fass Touré yal na ko yàlla defal jàmm waaye di nuyu sama papa bopp sëriñ Abdoulahi Diagne Kang nekk ca croisement bu Ndiagne ñu ngi koy ziar sëriñ Mouhamadou Kabirou Sarr xalifu euh, euh, xalifu alaaji euh, Moustapha Sarr ca gin gi neew ñoom tamit ñu ngi leen di ziar alaaji Cheikh Baba Ndiongo fils de alaaji Baba Ndiongo mu xadam la ci Seydi Hadji Malick Sy ca Podor carte Ndiobène ziar nañ ko sëriñ Ahmadou Seck xalifu alaaji Seck nekk ci Khourdan sama soppe la waaye tamit imam Mansour Seck nekk ca Yëmbal di professeur irab am euh, ajaratu ndey sufital moom tamit ñu ngi koy ziar. Cheikh Ablaye Ndiaye moom tamit ñu koy ñaanal fan bu gudd ak wér gu yaram waaye di ziar nag Cheikh Abdoulahi Soxna nekk ca Fatick ñu gën koo xamee ci turu As Soxna moom tamit di xalifu baayam baay Barahma Sona nekk ci Medina Mbalay yàlla ko yàlla defal jàmm sëriñ <laughs> Basiru Gajaga nekk ca Dingaral xalifu sëriñ Maktaar Gajaga ñoom tamit ñu ngi koy ziar waa ci ma xam wax na bàyyiwuñ kenn ki fi jaaroon keroon nag di góor gu baax gi di yow di sëriñ Jili Samb marabu chef religieux dëkk ca quartier Samba Lawbe ca garu ngi koy ziar benn app yàlla na ko yàlla defal jàmm mbokk yi kilifa diine yi yàlla na leen yàlla sàmm teg leen ci yoon yi nga xam ne mooy yoonu siraatal mustaqim ñi nga xam ne ñu ngi dund ñun ci àddina yàlla nañ fi yàgg lool te ñi nga xam ne dañoo dëddu àdduna yàlla na yàlla xara ci àddina gën a kawe waaye wax fa dëgg yàlla kilifa diine nekk ci réew mi ak fu ñu mun ci nekk ak fu ñu mun munti nekk rek yal na leen yàlla sàmm yal na leen yàlla wormal ndax wax fa dëgg yàlla ñoom daal ñooy suñu ay président ñooy suñu ay ministre ñooy suñu lépp ndax ñoom ci nguuru yàlla nañu bokk te yàlla leen yoonu ci suuf ngir ñu daara leen taxawal wan ñu yoonu siraatal mustaqim kenn du yéen yàlla yàlla dafal jàmm yéen daal yaa man yéen yéene samay gouvernement kii nag sama baay ju baax ji alaaji yan ma deer papa yàlla yàlla guddal sa fan yàlla la yàlla may fan bu gudd góor gi yaram taaliba sëñ Babacar Si baa ngi nii góor gi Ablaye yan ma deer yàlla la yàlla dafal jàmm may la fan bu gudd ak yor gi yaram su may wax ci yow sama xol day jeex ay waay yàlla yàlla guddal sa fan mbokk <laughs> benn booy bu waane mën a woy moo fi ñëw tey ñu naan ko Adama Ngaw bu Adama Ngom bu sëriñ Mam Mor bu so Mbambilor Mbambilor gi yëpp xale bu góor bi moo fi teg tànk ay guddeem kenn du ko tardé fa muy woyee wax dëgg yàlla day yëngal Bambilor mu nekk nag xale boo xam ne soppe la ci biir Bambilor soppe la ci yoonu murit soppe la ci taraxe bi ndax way yi nga xam ne moom lay way sell na ànd ak na yoonu siraatal mustaqim kenn du aadama ngoom bi nga xam ne wax dëgg yàlla ba muy génn di ñëw waa Bambilor nan ko aada yebal nañ la tey ñu ngi lay xaar Bambilor seen doom jaa ngi noonu borom baatu wurus bi moom la dalal tey ci plateau Kouthia ay ca aadama ngoom booy na nga def ay ca daral mu ñëw ahmadu naay sunu waaje xaadimal Moustapha. ndeysaan loolu dafa aay wóor yi. <laughs> sëriñ Mamoor ku sopp baayu bas baara. baayu bas baara. nga ni ko. bayu ba sag baare mami sëriñ mama bu sa baani borom saam micro da nga koy sori ki mooy ngat mooy ngat sëriñ Tuuba Mbàkke sunu waaje yow boo <laughs> yaay ay sunu waaje xaadimal Mustafa ndeysaan ñi la bëggoon nga ni nga ko bëggoon seexal na leen sunu waaji nga abu bila sunu waaji nga ni sama waaji mooy suñu waay moom ku moom yaa ko moom de. ci sama waa ji. Bambilor. moom sama waa ji. amuma lu dul moom. Adama Ngom. xamuma lu dul moom. taalibi sëñ Saliou. bëgguma lu dul moom. taalibi sëñ Momar. moom sama waa ji. ci sama waa ji. waay biraasu man baarasani biraasu man biraasu man baarisul muntaximan baarisa man ku lew toog moom bur yàlla ngay bëree sama sëriñ ba. ndeysaan Abu Bilal. waaw cant gu wuteeg kañu day des. waaw cant. waaw dafa war a nduru kañu. kañu mooy lan. kañu mooy da ngaa war a wane ne sëriñ bi képp la. ah si si waaw. loolu mooy fulla. mooy fulla waaw cant bu wuteeg kañu rek. waaw day des. loolu nag loolu nag du samay wax. sa sëriñ mu ngi Bambilor. sëriñ Mame Mor Bousso Bali borom sàmm mu nga Bambilor. Ah. di defar ndaw ñi. Ah. mooy woote 31 décembre chaque année. Ah. fële ca Bambilor. man ba ma xamulee dara sëriñ Mame Mor Bousso moo ma def ci man alxuraan def ci man lii di sëriñ Touba. di di ci profitoo nag di nuyu taaliba cheikh yëpp sama wayjur ndax sama wayjur wu góor alaaj taala moom taaliba cheikh la. moo ma jël jox ma ci kër sëriñ Touba nga jox ma sëriñ Mame Mor Bousso. ne sëriñ Mame Mor Bousso lépp lu nekk ci yow dama bëgg nga def ko ci aadama ngoog. yow sa sa sa waajuru góor. sama waajuru góor taalibe Cheikh la moo tax bu bilaal booy wax ci murid ak tijaan sama xol day sedd ndax sama waajuru góor taalibe Cheikh di ci profité di ko ñaanal yàlla ko ma xataloon dana metti ci yoonu murid bi te lii nii facette bi may defee nii. waaw man Ndeye Ngom Bambilor mooy sama maam. waaw yaakaaruma kañ ku dul Serigne Touba Xaadim. booy yow mën a way. man Serigne Touba képp laay way. oui yaa ngi may dégg. Ndeye Ngom Bambilor mooy sama maam waaye dama ne Serigne Touba laay way. yaakaar ma wayaan ko dul sëñ Touba. ngeen way kilifa diine yi xam nga kilifa yi ne nii nag. waa kay ko sëñ Fallou Mbacke. waa kay sunu waa kay yaakaar ji. di ko waajalee incha allah. Euh, Magal Kazu Rajab gi waaye nag di profité di ziare Thierno Amadou Ba. sa xarit la. waaw Thierno Amadou Ba sama xarit la sama xarit la. la gis nga gis nga saa may ñëw ci programme bi. waaw taalibe Cheikh la. waaye lépp sama clip bi. waaw da cee def lu mën ak lu mënul. Ah. barki monsieur le maire maa ngi sant bu baax a baax a baax jàppale di ko di ko di ko biral commune Bambilor ku baax la waaw xam Bilal waaw damaa bëgg nga bàyyi ma ma wax ak ma wax ak àddina waaw borom cité Akis sama xarit ma Samba borom maraxib sama xarit la di sama xarit la sama xarit lañu yow sa sama sama wëllë dëgër la sa waay la damay tëdd ba guddi di ko xalaat nga ñëw ci falay falay falay falay ñëw ba di ko ba xarit la koy ziaré xarit la moom xasaay rek maa ngi koy ziaré di ñaanal man daa gàkku di ziaré yoonu murid bi yëpp sa ñu taxam ak sa nga àndal waaw Salim Salim mention mbégte ak kontaan ak mag di wax joyeux anniversaire ak bébé papa Diop doomu Amath Diop ak Ndeye Anta Ndiaye depuis Yaraax euh, sama doom sama xarit de la part de tonton ca euh, moom tamit photo mu nga noonu mbokk yi xam nga ne Alassane Dramane Ouattara week-end bii euh, semaine bii ñu génn ci sa bii nii nii biir kii bi ca la doon def li nga xam ne mooy prestation de serment gërëm na waa Côte d'Ivoire yi nga xam ne jox mujj nañ ko jox troisième mandat. troisième mandat ba waa Côte d'Ivoire doon bañ Alassane Dramane Ouattara mujj naa am troisième mandat ma ngay wax nag li mu waxoon ne nguur dafa neex lan moo tax tey mu dëgëroon loolu ba tey actuellement nii ado gaa ngi koy teeru ado ngi def déclaration ñu dem seeti ado ada ki nga xam ne mooy Alassane Dramane Ouattara ca biir Côte d'Ivoire muy remercier ay militants am ak ñi nga xam ne ñoo ko fal ñu seeti Ado. <laughs> jërëjëf merci jërëjëf vraiment je suis content de tous les Ivoiriens et Ivoiriennes. troisième mandat quand je disais que dama bëgg de troisième mandat ñu bëri ñu bëri loo mun a am waaye yàlla moo war ne lii mun na am yàlla moo dogal ni moo bëgg ni boo bëggee yàlla mu dogal yàlla li dogal moo am soo bañee yàlla dogal. lii nga bañ yàlla dogal ma waxoon naa bëgg naa troisième mandat yàlla def na ma am na troisième mandat ko alhamdulilah rabbil alamin je remercie toute la population de Côte d'Ivoire ceux qui ont voté pour moi et ceux qui n'ont pas voté pour moi vraiment c'est vous avez prouvé ça parce que vous avez voté et maintenant j'ai fait troisième mandat c'est lu du doy lu du doy ma wax deux laa ñu ne deux nga yem deux nga yem da yem da nga yem deux fii nga yem doo dolli doo tollanti war na leen ma def troisième mandat yàlla def na man léegi am na troisième mandat. nguur moo ne. wanaa ko fii nguur dafa ne. nguur ba balaa nga xam nguur moo ne. nga ne def benn mandat. mu neex nga def fa benn mandat mu gën a neex nga def fa troisième mandat. léegi na comme am na troisième mandat <laughs> su waayee bi nekk na ci <laughs> bu ma bu paree bi ma defa ma defa ma ne yéen yéen naka suma xarit ñam na nee na bàyyi naa musu koo dégg ñam naa nee na tolentima ñam naa nee na ma tolentima waat encore ma def ñetti mandat mooy bii ma dugg nii nguur moo ne nguur boo nekkee ci nguur war naa la boo nekkee ci doon na mu dala loo bugg rek yàlla def na loolu mu nekk sa xel loolu am na nga nekk fii nga bugg dem léegi itali nga wa sofa avion bi mu ñëw nga dem itali nga naan café nga ñëwa boo nekkee président danga nguulu danga nguulu ba yaakaar ne yow sax yow sax àddina amoo dala loo xam ne mun na jaaxala danga nguulu nguul bu tax nguul mu ne nguul war naa ko fii doo jënd mbulu nguul doo jënd mbulu nguul da nga nguulu da am bu yi nga faj sa soxla sa mbokk mi nga am problème yaa ngi réglé problème yaa ngi dugg yaa ngi wana li la bugg li la bañ ni wana yow def la problème yëpp nguule ku la bugg a nguul danga laa bëgg a xaañ sa teraanga àdduna comme que ma am na troisième mandat léegi ma ma bëggoon après bu jeexee nga def ma quatrième mandat. dégg la comme que am na troisième mandat ma dama ñaan bu bi jeexee ma ama quatrième mandat <laughs> ndax nguulu boo nekkee ci nguulu mm. danga nguulu nguulu nguulu nguulu nguulu nguulu ba yow nga yàgg ne nguulu du jee waa léegi Côte d'Ivoire gis naa làmb naa nooy na dama bëgg mu gën a nooy ah, <laughs> comme que am na troisième mandat pour ama quatrième mandat nekkul lu jafe man de génn naa ci mbali bi xaw ma ku dee ci mbali bi <laughs> mais man génn naa ci mbali bi ala ala sawatala génn na ci mbali bi Alpha Condé génn na ci mbale bi xaale am na nga keneen keneen nag bu génnu ci mbale bi yaa xam waaye man daa man na ci mbale bi Alassane génn na ci mbale bi man dama nguulu ci mbale bi man am na nguur ci mbale bi man dama nguulu nguur dafa neex nguur dafa neex danga jënd mbulu da nga am mbulu nguur dafa neex nguur dafa neex doo jënd mbulu doo jënd mbulu nguur dafa neex troisième mandat dafa neex soo ko fula fayda moo tax am ko bul warwarlu bul laaj laajlu bul daqee bul mer fula fayda moo la ko may nguur dafa neex nguuru dafa neex moo tax maa xam naa am na koo xam ne xelam nekk na ci waxagul affaire yi noonu danga lamb mu nooy nga bés danga lamb mu nooy nga bés soxlul daqee soxlul ci patu soxlul mere soxlul woo keneen ak keneen fayda moo tax nga am nguul nguul dafa ne nguul dafa ne troisième bana dafa ne ku ko am doo bay doo ko doo ko bay Guinée moom génn naa Côte d'Ivoire génn naa Mali da ko doon essayé Sénégal yi. xam ngeen ne euh, Kouthia c'est l'ambassadeur des jumeaux et euh, jumelles yi nga xam ne noo nekk ci àddina bi ndax euh, ONG boo nga xam ne nag soxna Khady Mbacké nekk ca New York moom moo ko taxawal ci àdduna bi nag moo taxit képp koo xam ne da nga nekk jumeau wala jumelle di yëngu ci aar war nga yëngu ci dara wax xamal ne Kouthia booy sa ambassadeur moo taxit les jumelles d'Afrique dinañ fi ñëw lundi incha allah ñoom ñooy leen les invités de Kouthia Show et seront là les deux jumelles qui des chanteuses artistes et qui seront à d'honneur de l'émission Kouthia Show, l'émission Humour ici au Sénégal et partout en Afrique et dans la diaspora elles seront les bienvenues voilà ñu ngi noonu euh, ñu bàyyi leen ñoom seen bopp euh, Jamil Ba gis nga mu ngi noonu euh, les jumelles gis nga leen ñu ngi lancer appel ñu bàyyi appel bi jàll. coucou asalaamaaleykum na nga def Kouthia voilà c'est jumelles d'Afrique les jumelles du Sénégal jumelles de Dakar voilà comme tu alors merci pour l'invitation à la TFM pour le Kouthia Show alors on va mettre le feu, on va s'enjailler et puis on va soulever quoi. <laughs> Donc euh, merci euh, pour cette invitation à la TFM. Plein de choses à toi et... Bonne soirée à toi, à très très bientôt pour euh, le soulèvement, le dérangement, le feu de ça. Merci beaucoup Koucha et bonne soirée à toi. À bah, plus. Ok, tes jumelles te disent merci et prends soin de toi. À très bientôt. Bye bye. Bisous bisous. voilà gis nga nag kon euh, lundi incha allah elles seront là avec euh, l'équipe de Kouthia Show pour ñu def benn show bu mag ci li nga xam ne moom mooy euh, l'art des jumeaux et jumelles mbokki yi. vingt 27 li ma leen di wax ni information la le 27 piqûre bi nga xam ne moo tax coronavirus mu daa dee tàggoo tubaab yi nee nañu Europe Union européenne nee nañu am nañu vaccin bi maanaam am nañu piqûre bi am nañu ñeex bi. maanaam am nañu piqûre bi am nañu ñeex bi ñoom dinañ ko essayer foofu le 27 dans tous les hôpitaux Afrique nag am na pays yu d'accord Sénégal moom d'accord nañ nee ñoom d'accord nañ pour essayer essayer bi nag <laughs> ah nee nañu nañu essayer cent échantillons personne après ñu yónnee leen ko te nee nañ ci gouvernement yi ñoo koy essayer gouvernement yi nag ñoom <laughs> ñoom comme que dañ koy essayer yéen ñu bëgg yéen ngeen njëkk koy essayer ba pare bàyyi ngeen koy essayer si ñu yéen ñi nga xam ne ñun ñoo leen fal ngeen jiite nga xam ne lu ñëw yéen yéen yéen njëkk aaki moo aaki mu leen vaccin ba pare ñu dem seeti ki nga xam ne muy président Macky sàll ak vaccin bi bu ñëwee kan ci kan la koy njëkk a essayé ndax ci moom la koy essayé war na koy essayé ci population bi ñu seeti Macky sàll ñu doq ko dañu def sama bureau bi mu xam ni comme ça comme ça waaw Macron ça va yaa ngi tane mais Massawaay ça avance tu es en de cracher oh je suis désolé Macron mais ça va aller ça va aller oui je je reçu le l'envers là ils m'ont donné le seringue et le ñeex la le kii la. Oui. D'accord, vous, vous, démarrez le, vingt 27. Bon, moi je vais démarrer. On va essayer ça, quoi. Bon, tu sais, on peut pas convoquer la population. On est obligé d'essayer ça entre nous. Oui. Oui, d'accord. Mais tout va mieux. masse, masse, masse. Masse, tu es <laughs> Ok, masse. Mais que Dieu vous garde, vraiment, je suis de tout cœur avec toi, que les, tous les compliments. D'accord, je vais consulter les, les, mes ministres et mes collaborateurs pour qu'on va essayer ça. Comme affaire bi feeñ na léegi xoram mu xool nag affaire piqûre dafa nekk affaire yu sensible quoi xoram mu xool kan laa ko njëkk <laughs> Monsieur le ministre de la Santé, Diop Sarr, waaw les vaccins sont arrivés et comme que la population veut que ñu essayer ko suñu biir foo nekk fan nga nekk ah tu es Dakar mais parce que les résultats doivent sortir taf taf nii quoi Diop Sarr mais il faut venir viens entre waaw d'accord kon il faut venir waaw on va essayer yaa ngi woon ci buntu bi ko taxaw du métti da ngay gëm ah du métti Diop du sar du métti non je vais essayer tu sais comme la population a demandé que mais c'est Mais Diouf Sarr, c'est une question qui est très intéressante. Mais tu es le père de ministre de Santé, quoi, aussi. parce que les Français ont demandé qu'on essaye, nous les ministres, vous les ministres. Je suis derrière toi. Non, Diouf Sarr, tu vas, non. nangu war nangu. Ils acceptent, mais après toi. mais non mais dama da ngay nangu ma piqûre la war a doon nangu ma piqûre comme que dañ koy essayé kay. nañ ko njëkk a essayé ci yow yor santé bi. ah mais tu es le président. waaw mais monsieur le président mais mënu ma essayé sama bopp bàyyi ma essayé ko ci yow ba pare parce que su ma ko essayé ci yow yow yaa gën a nekk xale. waaye non tolloon fi nga taxaw ma gëmal. waaye gëmal ma essayé ko ci yow te nga bàyyi li nga def. dama ko essayé waroon nga démissionné bu la jigéen nga démissionné waroon ma essayé ko bu la gënal. bu ma démissionné mais nag monsieur le président. non mais vraiment c'est vraiment dese la ko da ngay essayé war a essayé woo da nga essayé waaw kon léegi da nga gëm moom piqué tey nga de Diouf da ngay essayé war a essayé woo si je vais essayer monsieur le président ah walla Diouf on a des questions sérieuses quand même mënoo ko si wala ma bàyyi la nga xalaat attends laisse-moi réfléchir. ah réfléchir waaw vas-y am problème. Seydou Gueye dafa ma benn communiqué que Diouf Sarr dàq naa ko parce que dafa ñëw fii pour mu essayer mu naan ay je vais réfléchir bu mu duggati ci palais bi parce que tamit mënuñu def affaire corona vaccin bi ñëw mu ne moom day bañ non non non y' a pas de problème attends waa joxaleen communiqué bi le le ministre de la santé Diouf Sarr na fi plus partie du gouvernement de Macky parce que tubaab yaa ngi xaar résultat yi ma koy essayé ci moom mu naa ma xaaral je vais réfléchir ok certainement pas Moustapha Niasse comme que c'est assemblée waaw wala ma woo waaw vaccin yi ñëw na fan nga nekk ni <laughs> waaw mais tey lañ ko war a def de ko war a yóbbu tey ci vol bi ah fi am ay ngénte doo mën a ñëw d'accord am problème alors monsieur Idrissa Seck <laughs> nouveau collaborateur waaw mais vaccin yi ñëw nañu gars yi daal koo mu na la du ñëw dafa am problème dafa kii ah toi accepté nga ah non vraiment yow idi vraiment bett bett nga ma quoi parce que foogoon naa ne sax da daw <laughs> Pape Moustapha Niass laa woo mu ne mu ngi Conakry ma woo ministre de la santé mu indi affaire tappale ñu ne ñoom c'est injoignable koo ci woo doo ko jot information bi journal TFM ñoo ko wax ñoo ne ko vaccin yi na tey tey tey la ñu war a yóbbu rapport yi yaa ngi sa bureau waaw ok d'accord j'arrive non mais ñàkkal sa bopp rek war nga ñàkk say collaborateur après nga envoyé ma résultat yi ok idi yow góorgóorlu rek gis nga boy góorgóorlu rek gis nga poste premier ministre bi maa koo tegaat fii te yow laa koy jox parce que gars yi ñemuñu quoi te tubaab bi Macron ne lu mu guddi guddi naa ko ni résultat yi <laughs> maay sama patron <laughs> ok booy maa ngi leen di wax ne ñàkk yi ñëw na ñun nag nguuru Sénégal dañu fas yéene taxaw bañ ko essayé ci population yi bëgg ngeen am résultat parfait moo tax man ma jël décision man docteur Sall fas yéene ñàkk ñi nga xam ne ñu bokk ci gouvernement bi ni ngeen ko bëggee noonu nañ ko defee parce que du ñu dem ci baadoolo yi di leen ko ñàkk ñun borom barke yi ci ñun nañ ko commencé donc woo naa président Moustapha Niass il n'est pas disponible il est hors du pays woo naa ñeneen ñu fay seen téléphone seulement Idrissa Seck rek moo jëngu pour mën a def ko kon tey xam naa ne du yàggati boo leen déggee beneen nombre tànk boo xam ne def naa ko Idrissa Seck c'est parce que cawarteem la ci biir Sénégal donc nag mooy wax ne vaccin yi nañ ko essayé ci ministre yi ak ci député yi su ko defee kenn ku nekk mën a jël et puis nañ ko essayé ci mbër yi ba pare parce que doole la looy laaj et puis ak ku am cawarte kon mbokku Sénégal dox daje incha suba ci résultat yi nga xam ne ndax parfait na war a parfaitul maa ngi leen di gërëm di leen sant di leen wax na nag wax dëgg yàlla lii mooy wane ne état Sénégal am na li nga xam ne moom mooy Pastef pour taxaw wana askan bi que lépp loo xam ne dañuy def dafay leer nañ ay ñàkk la yoo xam ne bu ñu leen ko ku am corona du la wàll te du dugg sa kër te day indi naataange ni ko tubaab yi la le 27. ñu tey nañ koy def pour résultat yi mën a dem tey ci guddi bu fekkee résultat yi c'est positif ñu commencé ko commercialiser kon léegi li ma waxoon sax mooy dañu ma waxoon na am na ay sant yoo xam ne fa nañ koy commencé <laughs> xam nga parce que pour ñu xool ñi nga xam ne dañu bokk ci groupe A ak groupe B ndax nangu nañ ko am déet mais yooyu yëpp amul solo mais wax nag ñoom Sonko bu fekkee ne vous êtes des vrais patriotes mais ñëw leen Khalifa Sall ñoom ñëpp nañu ñëw porte volontaire pour wane ne piqûre bi solution la comme que woo nañu ci dialogue bi ñu ñëw di gën di wax te bi ma leen woo ci Covid bi la woon kon Sonko Khalifa Sall Thierno Bokum Barthélemy yéen ñi nga xam ne ak ki nga xam ne mooy Mimi Touré te génn fi barke démb bu fekkee la ngeen di wote am nga ay patriote ñoo la ñakku man moom xam naa danaa ñakku waaye fu may ñakkoo mooy damay bàyyi ba affaire génn ba pare mu war mën a résultat yi parfait na mu ànd ak yéen pour ñakku fagaru ak fanku ak teel a jóg si li nga xam ne mooy ñàkk bi comme Idrissa Seck une fois encore il mérite ñu jox ko poste bu gën a garaaw poste bi mu yor parce que il est le seul sénégalais bu fayal téléphone am ci nangu li nga xam ne mooy ñu piquer ko ci li nga xam ne mooy corona bi parce que avant la pendant et après fagaru. moo gën culturel qui se tiendra le vendredi 25 ak samedi 26 dimanche 27 lay doon foofu nag ca Sandra ajuma ji dana am tournoi de football samedi bi mu am suite et don de te bu ñu fàttali nag incha allah le dimanche mooy am commémoration du feu Aliou Diouma euh, Ndour ñu naan ko Dioumbaye euh, suivi de nettoiement du saint euh, cimetière de Ndoundour ñoom nag ñu ko fay amal marraine bi di soxna Ami Thiam madame Sine moom ci boppam moom la ñu def marraine 72 heures yi nga xam ne ma ngay am foofu ca Bandiara dimanche bi nag à partir euh, euh, euh, di ziare alaaji Malick Soumaré ca banque ci de soppe soppe alaaji Yann Mader ñu ngi koy nuyu di ko ñaanal fan bu gudd wërgu yaram bienvenue au complexe sportif Khayra fitness club tey nag ci guddi tey ci ngoon si laay dem foofu commencé nag dem xooli sama saal ba nga xam ne mënuñu ko tuddee di saalu Abou Bilal nag bu sama yàlla ajjuma bu nekk nag waa Touba dinañ ma gis léegi chaque ajjuma vendredi samedi dimanche damay fitness club euh, nekk ca Touba ci ndigalu sëñ Mountakha Bassirou Mbacké ci la ñu nag autorisation bi nga xam ne euh, ñi ko euh, samp foofu pour nag gars di mën a tàggat seen yaram am na salle boo xam ne nag pour jigéen ñi rek la nag salle boo xam ne jigéen ñi rek ñoo fay nekk waaye tamit am na foo xam ne kilifa yi tamit yu mag yi ñoom ñoo fay nekk am ñeneen ñoo xam ne nag wax dëgg yàlla ndongo yeeg ñeneen ñi nga xam ne ay sportif lañ danañ fa nekk am na jumaa Dia pharmacie Ndingala moom tamit côté boobu la nekk ñu ngi koy ñaanal fan bu gudd ak wér garam di jigéen boo xam ne incha allah dinañ ko invité ci émission Kouthia Show ndax maquillage yi Kouthia ak am tey ci Pikine xéwal gi entrée bi VIP 5000 francs la euh, simple francs booy Idrissa moom moo koy amal yaan yàlla may ñu fekk ko kenn bañ a manqué euh, Thiat Couture ca HLM en face Ecobank moom tamit ñu ngi koy nuyu ak borom caat ku tudd Fama tamit ñu ngi koy ñaanal fan bu gudd ak wér gu yaram yàlla ko yàlla defal jàmm ak xéewal di am ci xaali al euh, al Maxtum moom tamit ñu koy ziare ak ajaratu Jaaga euh, Diallo depuis Kër Ayib ak doomam Mami Taw ñu ngi koy ziare di ko fan bu gudd ak wér gu yaram Alaaji Moussa Ndiaye euh, moom mooy waajuru soxna Seyda Mariama Ndiaye mi nekk ci TFM caméraman moom tamit ñu ngi koy nuyu di ko ñaanal fan bu gudd ak wér gu di ko ñaanal jàmm mbokk ñi sant Cissé nee nañu ñi sant Kébé gis guñ leen ci plateau bi. waaw nee nañu Kouthia daal gisuguñu benn yoon nga wax ne ñi sant Kébé macha allah décoré nañ la ñoom ñi sant Cissé la ñu ngi préparé nee nañu attention Kouthia may nañ la ba altine ba talaata bu ñu gisul loo xam ne wane nga ko ci télé bi ne ñi sant Kébé ñoo la ko defal ah ñu ngi sant Cissé dañ ñëw kon nag ñi sant Kébé wax fa dëgg yàlla boobu léegi maa ngi leen di xaar gisuguma leen ah maanaam <laughs> dëgg yàlla te Cissé Cissé yi nga xam ne ñoo nekk ca Saalum nee nañu may préparé gàmmu xaalis am na Kaolack laa may dafa am gàmm boo xam ne dañuy joxe ceeb euh, dugub ñebbe mais ziar boo xam ne ziar xaalis kenn ku nekk da ngay indi laa ilaaha illallaah problème wécci bu amee Dakar xam ngeen ne Kaolack nga ko mën a amee fu mu ne laa ilaaha da nga gis ay taalibe yu génnee génn man te bu ah, fekkee mooy pare émission maa ngi Kaolack su ma Kaolack laa dem te ziar léegi nag ah kan moo joxe 3 millions. <laughs> Baye Adi Baye Adi nag 3 millions yooyu coppal ma ko sama benn million maa ngi <laughs> léegi nag mbokk yi commissariat de la propriété bi taxaw na commissaire bi nga xam ne moom mooy commissaire mbalit <laughs> di Awa Dieng na am na lu am na lu xew ñu dem seete ko. piip paan parara piip paan oto mbalit ñëw na parara piip paan piip e eh, oto mbalit ñëw na parara piipa parara piipa oto mbalit ñëw na parara piipa piip paap kon piip merci jërëjëf kontaan naa ci yéen vraiment kontaan naa en tant que commissaire mbalit euh, awma ci complexe nekk commissaire mbalit parce que bu weesoo ko sa commissaire mbalit bi su ma la rombee du ma xeeñ mbalit te xeeñ mbalit sa du gàccee ndax liggéey la boo xam ne wax dëgg yàlla noble environnement waaye waa géeja waay ci boppam ñoo ma yónni filawoo yi nga xam ne moo desoon dernier poumon pour géejawaay mën cee nooyu environnement bi nga xam ne brise de mer biy jugee ci géeju géejawaay bi dal ci filawoo yi filawoo yi récupéré ko jox ko waa géejawaay ñu nooyu ko yàqu na sareetu mbalit yée nañ koy jal mu mel ne mbëbës de daal di koy jal bi jalaanoo te kooku préfet ci war a jóg daal di koy tere maire bi tere ko su ko defee nit ñi mën a noyyi géeje waaye bu njëkk ba boo bëggoon am air pur fa ngay doxantu place bu ñu naan bu nga daal day lal bu mel ne nekkoo Sénégal ngelaw gu neex nga respirer teint boo xam ne macha allah jigéenu waaye seen teint amuloon benn si réew mi boo musaan gis ku dëkk géejewaay day mel ni mitis teint bi day tembi tembi ndax teint bu rafet la doon am waaye mbalit ga ba mu commencé jal bi jalaanoo mel ne monument koo fa romb lu sa parfum fort fort fort fort foor diggante bi ngay tourné corniche bi oh, maara day taani moo tax sama gars yi dafay jaar naan parara pipan oto mbalit ñëw na parara pipan pip ma ñëwaat ñaar. waa su Sénégal lu tax glissé yi nga xam ne moom la ñuy pont yi ñuy yéeg. bu ñu lekkee jël seen sandwich di ko sànni ci kaw tëli bi. te Sénégal di préparer pour ko ci Coupe d'Afrique bii di ñëw. Sénégal di préparer pour war a mën a organiser ay séminaires yoo xam ne état yu mag yi dañ fii ñëw. bu leen fàtte ne ay télévision àdduna bi dañuy ñëw di ko seetaan. bu ñu xoolee ñu ne Sénégal wax dëgg yàlla bëgg nañoo organiser waaye setuñu. kenn ku nekk nag yaa war a doon sa inspecteur mbalitu bopp. man commissaire bi damay def rapport jox ko ki nga xam ne mooy ministre bi mu jël rapport bi jox ko président de la République waaye Sénégal ci boppam dañoo dëgër bopp. mbalit bi nga xam ne dañ koy taal muy noyyi xaj ba ci boppam di ñëwaat ci ñun ñuy noyyi ñaari pollution pollution mbalit ak pollution saxaar waaye fi nga xam ne moo gënoon taaru ci banlieue bi di géej waaye corniche ba nga xam ne filaawo yi ci boppam da doon fileeku. air bi ci boppam di la ko jox nga koy noyyi muy neex géej gi di dal ci brise bi amatoo ko tey ndax air bi nga xam ne mooy polluer mbalit bi moo ñuy fekk ci diggante amoo géejawaay ba jàpp sa am te nag loolu préfet moo ci mën a jóg parce que wax dëgg yàlla am na loo xam ne maa tey la sareet yi nga xam ne ñooy yëpp mbalit bi fas yi nga xam ne ñoo koy yëpp ñooy njëkk feebar ndax ku yëpp mbalit bàyyi ma di ko nooyu yow mi koy nooyu te amoo lenn garanti yaa ngi rey sa ma ne parara pipa ah. <laughs> mbalit ñëw na parara pipa pip ci kaw a kaw ah, <laughs> lay parara pipa oto mbalit kara oui parara pipa ah. oto mbalit ñëw na parara pipa muy cat nga ni parara pipa oto mbalit ñëw na parara pipa am nañu euh, marché la boo xam ne bu fa jógee rek moom Mansour day mën a euh, <laughs> ne mu ngi ci ay 700 milliards 700 <laughs> euh, millions xam ne mu ngi ci poosam nga xam ne nag mooy am foofu nga xam ne moom mooy ca Kaolack ñu koy ñaanal yoonu jàmm yàlla teg ko ci yoonu jàmm jàmm ñuy am mbégte ak contentement bu makka di nuyu tamit dëkk bu ah, ah, ah, waa kii waa waa waa waa Sandiara Sandiara nag dëkk la boo xam ne dëkk bu Euh, am doole la te dëkk bu am solo la foofu la ki nga xam ne soxna Ami Thiam ah, ay waajuram am fekk baax moom tamit ñu koy nuyu Ami Thiam yàlla ko yàlla defal jàmm may ko fan bu ko dëgg wér-gu-yaram yàlla defal ko tamit ay xéwal defal jàmm ak teranga moom nag bés bi nga xam ne moom lañ ko tuddee foofu nga ne moo ca Sandiara ndax wax dëgg yàlla ah, foofu ah, gox ba wax dëgg yàlla nag bu présenté woon maire bu jigéen dañ ko fay fal ndax gis nañu ni nga xam ne nag moom la ko association yi nekk foofu nag séeréer nekk foofu bëggee moom tamit di doomu ngel ne waa ngel yi bëgg tamit wax dëgg yàlla ak ñi nga xam ne ñooy saltige yi nekk ca Sandiara ak Joal yëpp nag daal koy bëgg moom Ami Thiam yàlla ko yàlla ki ñuy seeti nag moom mooy Idrissa Seck ki nekkoon si benn jëm ñaari caméra soxna Seyda Mariama Ndiaye moom tamit nee na bu paree gàmmu xaalis ba fa la jëm amul xaar ndax ki nga xam ne moom mooy nijaayam di Baye Hadi euh, Thiam moom ci boppam nag wax dëgg yàlla mu ngi xaar pour suñu gàmmu xaalis bi foofu mbokk yi ñu seet Idrissa Seck ndax dana jël pikiir war du jël pikiir bi Idrissa Seck nañ seeti <laughs> salaamaaleykum maa ngi nuyu waa Sénégal yëpp di leen gërëm di leen sant di leen wax ne wax fa dëgg yàlla ndigal gi wàcc na ci ki nga xam ne moo ko joxe di kilifa gi mag gi nga xam ne wax dëgg yàlla ñu ngi koy waajal moom ci teewaayam di ko ñaanal fan bu gudd ak wergu gu yaram tàccu leen loolu fii may defee waxtaan bi ak fi Macky sàll dëkk diggante bi booti solee mun na wax yaaram kàllaa tàccu leen loolu yéen ñi ma fi woo tey dama créé ñaari wax bëgg wax yooyu wax dëgg yàlla Macky Sall jot ci bëgg naa léegi si réew mi fu ñu tuddee Macky ngeen tàccu ñaareel bi mooy képp bu ñuy seetaa bu ñuy sénti léegi weer bi nañ ko dem ba buntu jam ñaajo xool ko ndax ala alaaji Malick alaaji Macky Sall gis-gisam weesu la jam ñaajo weeru koor buñ koy séntuti buñ ko xoolal ci ay koñ nañ dem ba jam ñaajo taxaw séntu ko feneen mu génn lu weesu gis-gisu président Macky Sall incha allah le 31 décembre à minuit dama bëgg dajale parti bi yëpp militant yi ñu taxaw tàccu di tàccu lu ko dalee diggante huit heures ba minuit ñu koy tàccu di ko tàccu di ko tàccu ba Macky Sall daa dee xam ne tàccu nañ ko ci jëf yu baax yi nga xam ne def na ko piqûre bi nga xam ne génn nag di vaccin bi nga xam ne président Macky Sall nee na képp koo xam ne def nga ko te nekk ak moom ci gouvernement bi te def ko volontairement dana xam ndax yow bëgg nga ko war a bëggoo ko man nag wóoyu dama ko du ko sax pikiiru dama koy guux <laughs> ndax li ma fonkee mag <laughs> dama koy ñoddi ñoo ba mu ñoddee ko yaa may dégg ma ne ko tuuj na ko tajañ na ko tajañ ci barkeeg Macky yëguma métit bi ci barkeeg Macky xanaa maa wóolu Macky léegi nag mbokk yi soo leen gisee ma indi leen fii ñaar rek moo tax mooy benn bi dama bëgg ngeen taxaw wan président Macky Sall que le 31 décembre à partir de 6 heures danañ ko tàccul ba mu xam ne wax dëgg yàlla ñu nekk ci ginnaawam bari nañu moo taxit ma woo Awa Gueye Kébé ak rakki ñaan ne leen nag ak ki nga xam ne moom mooy xam ngeen ko sama booy bi nekk Thiès mu daa dee ñoo di jakara ngeen taxaw nii tàccu parce que Macky Sall nee naa ko première tàccu bi tay la bu ko déggee ñu félicité ko kon léegi su ma ne un deux trois jakara ananga <laughs> waaw da nga baax na moom dafa sew bu tàccoo yaram ba day dem ay ca awa kebe rakki ñaan wax leen bonne et heureuse année à Macky. bonne et heureuse année à Macky. ce 31 décembre. ce 31 décembre. nous vous pour tu as fait. pour tous ay ca tàccu na tàccu mu dégg ko tàccu leen. kon niñ koy defee tàccu leen. waaw Macky. de de de de na tàcc yi génn maaki mu koy dégg maaki waaw waaw maaki waaw waaw na foor na foor boole ko wax ma ki ay ca leen leen waaye tàccu leen voilà continue leen continue ma wax ak moom tàccu leen aloo Macky yaa ngi dégg tàccu tàccu leen tàccu leen nee na mu ngi koy mu ngi génn tàccu leen xanaa sa loxo yi mënul tàccu tàccu leen na tàccu la ko tàccu leen Macky mu dégg mu ngi koy ñëw dafa am muy waxtaan tàccu leen rek mu dégg ko waaye yéen doo leen tàccu yaa ngi dégg asa leen na gën a foor ñëw leen tàccuwaale ale tàccul mu ngi koy dégg tàccu leen na foor na gaa gaa tàccu leen tàccu leen waay tàccu leen waay.